ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Le ministère de la Santé et de l'Action sociale transmet ses condoléances les plus attristées à ta famille et à toute la nation et prie pour le repos des âmes des défunts. À ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1394 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum assankanui. Nous avons dit le communiqué numéro 75 ci lim bi nga xamante ne moom la mbas mi ñuy wax Covid 19 di def ci Sénégal.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 ngeen baal ma maa ngi fii nekk ak sama naataango docteur bu Bousso mi nga xamante ne moo yore cellule opérationnelle muy ñëw nag ngir waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ne moom mooy doxin wi nga xamante ne changé nañ ko ci fan yi ñu génn.